alors amis chers téléspectateurs toujours euh, tey euh, nee naa leen di ngeen am beneen facette ci man euh, ndaxte démb gis ngeen ni am na lu ñu dëkk ma loon nu yeggale ma ko mais tey laa koy mottali ngir ngeen mën cee békk ndaxte la grande dame la grande diva mënu ma ko bàyyi noonu mu dem pour votre plaisir xam ngeen ni ndaanaan bi kenn dootu ko natable ci Sénégal kenn dootu ko natable ci àddina abi su ma la waxee jigéen jooju kan la doon kan ngay wax ci moom ak lan nga war a wax ci moom. alors balaa may wax dama naan jamono ah, ah jigéen ju mën góor la vraiment. Euh, li muy def mën na ko ràññee nañ ko ci milieu am euh, te tarkaal la sa moom yëfam la teewam tarkaal la amul fenn képp kuy diw wala ngay di pigmenté wu moom dala koy tere moo tax ngeen bàyyi moo tax sax yéen kenn xeesalu tuuti non non ah. suñu teen dañ ci fier ba tax na bu ñu ko gisee moom mu nekk capitaine nag xalif général des teen dañ ci ànd ak moom du noonu euh, jigéen ju mën góor jigéen ju pare jigéen ju mën lu muy def waaye ku mën itam aar léegi-léegi dañ koy enchaîner ak moom léegi-léegi lay doon ami chers téléspectateurs pour votre plaisir bokk na ci ndaanaan yi nga xamante ni fii ci Sénégal ràññeel nañ ko bi mu tàmbaleeg ba fii mu yegg si amul benn recruté amul lenn lu ñaaw lu ñu koy xoolee wala ñu koy xeebee mu doon daanaan Koli Fadrine ami chers téléspectateurs pour votre plaisir voici la grande dame la grande diva de son vrai nom Mama Ndiolé Tall e fa ngeen toog yéen tam da ngeen koy tàcc Mama doxal dugg si di njàpp mu daal di yegg si moom mi nga xam ni mooy sunu yaay moo ko ma moo ko rafet moo ko jongoma ma <laughs> ko jongoma moo ko rafet moo ko gis nga fa ma tëll ak yow waaw xasaa nit dina tooñ yaayam déedéet kenn du tooñ ko ah, taxawal noonu mama nga ni ma ma am plaisir bu baax a baax a baax ma ma ma ma sag la gàddu de waaw man la lu mu na ko sañ nga ni ma ñu am plaisir dalal ko ñun itam fii mm-hmm. euh, ci euh, Parc des Princes euh, ngaay nga xool sa table bi yow it bu fekkee niñ ko tegee parce que xaw na avancé tuuti mm-hmm. baax naam baaxul ma mën koo gérer man lépp mën naa ko gérer yaay ma bàyyi la nga téléspectateurs yi nga xamante ni ñoom itam ñu ngi toog seen kër di seetaan. Mm. waa Kheucha maa ngi kontaan ci yow sama doom ji ah di ña di la ñaanal di nuyu waa senegal di nuyu képp ko fans bu toog dama seetaan. Mm. ñoom ñëpp maa ngi leen di jaajëfal di leen won ne Diamanoir ak Kheucha. ay tey ñu am plaisir bu baax a baax dalal la ñu itam euh, contentement ak mbégte mhm. abi loolu laa koy waxee dañuy gaaw rek vite fait parce que dañuy am deux parties ci moom mhm. waxtaan tënk koy tënk ak ambiance ndaxte am na lu xew ci jamono loo xam ni mhm. euh, ñun dañuy génn sax bàyyi leen ak plateau bi ñoom ñu gérer ko mën koo may téléspectateurs yi mais bien avant loolu euh, damay bëgg rapidement yow ci sa premier laaj ci ay début yaay njoole mii taxaw lan lay doon alors euh, man fi ma koy laajee mooy ku ne xam na ni aar dafa metti ku ne xam na ni nekk jigéen nekk ci milieu bi dafa metti ba tax na moom dañ ko gis à chaque fois day percer mm. chaque mm. fois euh, day day tenir day may courage jigéen ñu bëri ñu koy laaj courage boobu fan lay jógee ak euh, début yi ndax metti woon na waaw metti woon na waaye la ñu koy gérer ndax defe naa nit moom lu muy liggéey bu ko gëmee rek yàlla mën na ko ci jàppale. dëgg la ba taxit lu ko ci fekkit mën na mën na am góorgóorlu gérer ko ba loolu jàll. dëgg la parce que loo fi gis dafay jeex. yu mm. bari day jàll après nga paase ah continuer sa liggéey. Mm. loolu la. en tout cas mu doon loo xamante ni lu am solo la. Euh, mm-hmm. euh, nee naa la léegi euh, doon na koo xamante ni référence la ci xale jigéen ñu baree bari bari bari ci wàllu dépigmentation. fii ci mm-hmm. suñu réew. bari na ci xale yoo xam ne buñ ko defatul c'est grâce à elle. Mm-hmm. fonk seen tee respecté ko loolu yaay booy ban lan moo tax nga indaale idée boobu ak philosophie boobu noonu ba xale jigéen ñëpp di roy ci yow tey. ku ci yor tee bu ñuul xam ni tee bu rafet boo xam ni koo ci gis ak danaan mel ni yaay Ndiolé. waa Kheucha xam nga euh, teint noir dafa riche. Hmm. loo xam ne la ci doomu aadama. Euh, lu lu koy lu koy lu koy lu koy wone la. Hmm. lu rafet la te bala nga xam ne teint noir rafet na nga génn euh, nekkoon Sénégal hmm. boo fu jógee woon tey tukki. di romb ba ñuul ci ngay xam ne teint bi nga yor tubaarkàlla macha allah. ñëpp koy bëgg ba pare dina la jox sa wér gi yaram tamit ci xeesal bi lu bari parce que am na lu ci bari xeesal bi daf euh, daf koy def euh, ñiy jaay xeesal nag moom euh, naan ñuma ma leen mais damay wax rek pour man ah, ñàkk xeesal bi dina indi wér gi yaram tamit ci boo dee xool ci côté boobu mm. ba pare teint waar man daal dama ko taamu daal dama ko taamu te am na ñu bari ñu ci fekk si mm. Euh, ndaxte xeesal néegu lu yaas la boo fay da ngay génn xam nga tey ji xëcca euh, boo toogee euh. deux semaines wala une semaine rek diw woo wala semaine rek da la day di feeñ dëgg la te bu dee teint noir loo sol dem hmm. di nga jongo ma hmm. c'est que nag teint noir bi na set rek te silwise hmm. ah bañ am lépp loo xam ne tubaarkàlla macha allah ñi xeesal ñu dañuy reetaan mais en tout cas daal teint noir yi ñi ngi ci kaw ñu xeesal ñi ñu ngi leen di bëgg a gaañ ñu ngi leen di bëgg a gaañ baadu fi mu ne nii yéen a ngi seen kaw toog mu doon lu am solo loo xamante ni ba damm leen <laughs> dégg nga loolu mu doon lu am solo loo xam ne jàngat nañ ko dañuy waxtaan léegi léegi ci cinq titres yi nga xamante ni mhm. def nga ko yu gën a marqué ci sa carrière mhm. bokk na ci bu euh, njëkk bii nii abi euh, mhm. euh, nga laaj ko ko ñu continuer muy Chocovani bi jaman noir jaman noir day rattrapé léegi li nga wax ci wàllu li nga xamante ne moo di xees beeg ñuul bi da nga ñëw confirmer gën a wane ni carrément njollekat ah ci gàmmu jamono la yi laa bokk. te ñoom mm-hmm. laa voté ñoom laa àndal. Euh, lan moo waral jamono waar ak inspiration jamono waar fu mu jógee. waaw lan moo ko waral mooy Ndiolé bi mu njëkkee tëll rek ci télé. Mm-hmm. pour bëgg marqué ne Ndiolé ñëw na. Mm-hmm. mooy artiste bi nga xam ne dafa ñëw rek wane teint noiram. dëgg xam nga dinga nga di nekk sax artiste. Euh, wane sa teint noir ba mu neex la nga changé ko. mais man avant may def artiste bi sax. dama wane ne lii ma doon du ko mës a changé. yaa ngi may dégg. Mm-hmm. léegi kon pour ma ñëw ci showbiz bi. Mm-hmm. man teint noir bi laa ànd rek dugg si. dëgg la lu fi waay def ci teint noir man ngay jàppale. dëgg parce que maa njëkk a wane. <laughs> sama beauté ah bala ngaa xam ne jigéen bu ñu la rafet. mu mm-hmm. yeewu bësal mu. man la jàkk ay bëtam di nga xam ne lu dëgg la. waaw ah. waaw kanamu ma ñëwee rek damaa indi kanamu xeesal kat day froissé ngeen ma mais day froissé. ba pare xëcc amul na day froissé bu yeewoo froissé. ah xëcca amoon nay temps. xale bu jigéen boo yëgal xew. Mhm. bu fekkee dafa ñuul danaan du dem. waaw danaan mënuma dem xew ba parce que bu ma demee xam nga temps yi damaa ñuul. Mhm. mais léegi. xale bu ci ñuul boo ko yëgalee xew bu demee mooy dàq ñu xees. mais elles font elle partie des rares personnes moom ak Mame Bassine Thiam. waaw surtout naa à chaque fois seen seen seen tanwaa dañ koy fësal. parce que mariage wu sama copine Abi Saliou Dia. waaw doomu Oumou Sow maa ngi la ne jamono waar jamono waar jamono lan moo waral en fait feeling beeg bi. waaw feeling beeg cas bi nag ba foo tëll rek ñu xam ni moom ñëw na. waaw feeling beeg moom lan la. waaw feeling beeg cas bi nag moom don la daal. Mm. waaw ci njole la bokk affaire yooyu xam nga ku nekk artiste bu nekk artiste bu nekk ak sa salañ salañ dëgg la njole moom dafa jiital teint rek mm. topp ci ginnaawam mm. te nii laa koy bàyyi parce que nii la ma nit ñi bëggee fan si lii la ñu bëgg ci mm. te ñoom ñi li bëgg rek ci laay dox macha allah waaw kon dama ne ñi nga xam ne ay teint noir lañ bu leen rus a génn mm-hmm. fu xees toog toog leen fa ca des maa ngi ci seen ginnaaw mm-hmm. foofa toog beneen titre bi nga xamante ni def na étincelle ci euh, carrière suma yaay ji di njolee euh, bokk na ci noon bi ngay way noon pourquoi thème boobu te gis naa ne bari na view trop trop euh, le pourquoi tu as choisi de chanter cette chanson bi nga xamante ni ça s'intitule au nom de noon waaw parce que Kheucha léeg bu ñuy waaj a dara dañuy woo suñu yaay yi nga xam ne ñooñu ci jiitu ñu ñu ñu jàngat ko xool sama yaay bu ma toogee moom di waxtaan danaan ma bari la loo xam ne nit mën na ko bëgg na ko wax ci këram waaw ca mënu ko wax kon yow dinaa la defal euh, benn affaire pour nga pour nga mën ko wax hmm. dañuy xool li nekk ci biir kër yi hmm. noonu privé yi fi nekk hmm. parce que bari nañu bari xachaa dañuy reetaan nit te fi ne nii boo leen joxee paaka boo leen wanee ginnaaw ñoom ñoo lay jam dëgg la léeg li lay jam sax day nekk ci sa biir loo xam ne bu la ko nit waxoon tey doo ko gëm ah kon yooyu yëpp xëy na bu nu ko woyee dinañ defar jikko yu tuuti mënuñu defar lépp nag mm. parce que ay xale lañu euh, te ñu defar jikko yu tuuti nañu ci mm. mais bu nu joxee benn message rek defe naa ne mm. ñi nga xam ne sopp nañu jole bu fekkoon sax seen xel dem na bay def dara dinañ ne ah pourtant nag way njole wayoon na ko wala nangam mm. dañuy jéem rek mm. li ne ci biir kër yi daal ñun moom la ñuy jéem a xool loolu ci mën a woy te duñu forcé kenn duñu gaañ kenn mm. ñu liggéey ci génn ko moo tax ma def noonu privé euh, carte biscuit d'accord gagné des Eptec dugg dugg dang dang nga bëx la wut di la faj ndeñe <laughs> dégg la wax dégg la wax beneen titre bi itam <laughs> euh, moom mooy avec euh, bi nga xam ni moom mooy le leader de la génération consciente du Papa Diouf mhm. euh, gis na ni moom itam nga def ak moom benn duo boo xamante ni mhm. étincelle la bu kenn dootul fàtte muy mhm. kas-kas waaw vraiment ma ko ci waale vraiment Diouf maa ngi ko ciy sant parce que loolu single la woon boo xam ne Sénégal ñëpp ko bëgg dëgg la mu defoon ko nag taamu ma ci wooma ma ànd ceeg moom xam naa ne woon na ma tubaarkàlla la mu bëggoon ci single bi ci man def naa ko ni mu waree. maa ngi ko ci santaale bu baax muy Papa Diouf. muy nit ku baax koo xam ne vraiment maa ngi rafetlu loolu mu defoon ci man. macha allah muy lu rafet nga xam ne lu rafet kenn du ko fàtte. macha allah bu ma toogee ci plateau ñu euh, tudd ko rek euh, ñu waxuma ko rek booba dañ ko tuddul. waaye bu ñu ko tuddee lu baax li ma xam ci moom dama ko koy wax Demba Ñing ak Jogamaay Waali mi ci mbaaleen mu defaloon ma single boobu muy kaskas Sénégal gépp bëgg ko ma koy santaale ndax ah mu des ci xolu ñu ñi ba tey boo tegee mm-hmm. kaskas day cartonné mm-hmm. li ma waxoon rek sama waxu démb mooy sama waxu tey nee naa leen ragaluma vaar parce que bu nu may vaar nanu ma vaar ci may wax lu baax mm-hmm. bu nu may vaar nan may vaar ci may tagg nit mm. bu nu may vaar nan may vaar ci lu ma séqoon nit mu rafet ca loolu laa séq ak moom. Mm-hmm. vraiment li ma wax rek ba ma defee ak moom kas-kas bu ma yokkul téeméeri fan si yokk na ma juróom benni fan si dëgg la kon dama ko koy sante maa ngi koy sant bu baax ndeysaan di fa joxe bàyyi macha allah wax ji rafet na sunu yaay ji ci ki nga xam ne moom moo di leader de la génération consciente Pape Diouf ñu koy nuyu waale bu baax a baax mhm. euh, chéri bébé Bass yow kenn du la vaar sax man taakaarla bokkoon a ñuy vaar mhm. euh, mais ñu gis nga def aussi featuring ak ki nga xamante ne moo di Wally Balago Seck ku ne xam na ne Wally c'est le chanteur du peuple mhm. xale yi bëgg nañ ko mais nga <laughs> waaw loolu nee naa la dara fayu ko ci àddina waaw ba tey li ma wax léegi rek moom laay waxaat Choco Vanny moom man ak Waly sax ñun ñun ñaar vie yi daf ñu yéem <laughs> parce que Sénégal ko bëgg xam nga Sénégal lu ñu bëggul duñ ko conseil dëgg la mm-hmm. jaruñu leen di forcer dara mm-hmm. ñun léeg-léeg dañuy dugg rek ci studio bi euh, créer dara génne ko mais tey mu neex la par force wala tey xëcaa teg ma <laughs> amul fenn <laughs> ñoom ñëpp ci yem ah. boo defee lu neex jarul ngay woote mm. Mm. dañ lay teg par force mm. parce que ñoom it seen liggéey dañuy bëgg chaque jour ñu ñi di leen woo li ñu ñu leen koy jox dëgg la mm-hmm. ma def kook moom nag mariage may sa biige may sa biige maar sama waxu démb nee naa leen mooy sama waxu tey mu nekk nit ku ma jàppale xasaa sama doom ji xam na ci dara dëgg la parce que euh, yàlla damaa booleeg moom muy sama doom leen mais leen dañuy bokk fi nu nekk bokk bokk jataay dëgg la waaye cër ba nu ma fa jox ah. moom xam na ci dara man fekk naa la fa du benn du ñaar jox nañ ma cër mm-hmm. boo xam ne cëru yaay lañ ma def cëru mag cër koo xam da nga ko respecté mhm. bala ñuy def dara tàgguma du waxtaan ak man ku ci jënd lekk sax defe nga ne njole laa war a dem fëgg ne mu lekk ba pare mhm. respect boobu moom laa leen di sant avant tout waa nga daan ñëpp may sant Maria Yacine may si biigee di sant yaayam bu mhm. baax ki Kiné Diouf mi nga xam ne moom ma bàyyi doomam may liggéey ak moom mu yëkkati alalam di ma jox te musu ko yàq musu ko ne njole mii ngay jox buy am dafa ma cay dolli ma koy ñaanal baayam ba yàlla na ko sutu fan moom mii ca di sa barke ba ma ngi koy ñaanal bu baax Maria si may sa bige buy dem dina ma yóbbu su amee dina ma may dina wàññi ay musiciens sax daggal ma biyee yóbbu ma ñoom ñëpp may gërëm nag njaga euro bu baax mm. ndax nag waa li mënoon naa bëgg mm. mu am ñoo xam ne dañuy yàq ci suuf mm. may gërëm kone ñoom ñëpp staff yi bu ma leen juum parce que samay lay gën a neex ci moom moomu ngay wax di Wally Balago Seck li ñu doon vu que ni gis nañ leen fu ne un partout dans le monde mm. léegi fu muy joué fu ne ñu ngi gis Mama Ndiolé ca wet wa euh, euh, euh, sénégalais yëpp ràññee la léegi ci kaw seen ba ñëpp naan sax Ndiolé ngi biir Ramdaan tey li la gën a neex ci Wally Balago Seck lan la li ma gën a neex ci moom mooy tubaarkàlla léeg li ñuy teg ci kawam mm. mu am force di ko téye di liggéey parce que jamono jooju la ñu toll. xam nga man du ma fi nekk naan sañse bi ma gën a neex. dëgg ma fi nekk naan mën a way moo ma gën a neex. <laughs> Ah? ah dama naan la li ñuy teg chaque jour ci kawam mu toog rek di liggéey. maturité bi mu ci àndal. ak personnalité bi ak maanaa bi te loolu moo nekk ci moom. ku ko jege sax loolu la lay wax. Mhm. danaan la bul tont bul xuloo bul xeex. jéemal chaque jour ngay créer loo xam ne ñi ñu dañu koy wax. kon loolu man dama ko ci fonk parce que am na personalité mooy mm. force jabaram tamit am na personnalité. Mm. Mm. mosoo dégg soxna ci télé mu toog di tontul waali mbaa mu yox duggul sax duggul sax ci affaire am. soxna boo ko gisee waali moo am événement ñun nekkuñu fi mu géré. muy jeeg bu baax nag. macha allah ma koy ñaanal yàlla guddal fanam parce que jàppale na jëkkëram ci pat. dëgg la suñu yaay ndax bu ko neexoon muy mu mu xoolal muy muy de bokk ci bagage yi. waaye xoolal toog ca kër ga ceeb ba mu neex. waali heure bu ñëwee mu génn. defar ndékki li hmm. yaatal ñëpp kon yàlla na ko yàlla jàmmal yaayu Mouhamed kenn du moom ci mi réew en tout cas kaddu yi defe naa am na solo euh, Abi hmm. dañu war a dugg ci ambiance bi léegi léegi sa hmm. dernière question bi nga koy laaj balaataa gars yi duñu rejoindre léegi ndaxte am na lu xew bees gaan laaj ko lu nekk laaj ko laaj ko laaj ko nii rek te buñ ko ambiance ba gars yi ñëw non li ci nekk mënaguñ ko wax léegi ñu <laughs> xaar <laughs> ay ca kon euh, man sama dernière question <laughs> mooy mooy mooy li nga xamante ne euh, say projet uh-huh. lan la ñu njëlee di waajal euh, yan featuring la mën a xaar kan ak kan projet yeeg yoomuñ seen ñëpp njole mm-hmm. <laughs> njole nee naa la tubarkàlla macha allah. Mm-hmm. li ma yàlla may ma ci liggéey képp ku ma ci war a àndal te yàlla boole ma moom dinaa ci ànd ak moom liggéey aw ma ci benn problème awma ma ku may ber aw ma ku may def nii mm. ku ci woo ca li ñuy liggéey ñu d'accord ci hmm. muy lu baax nekk rek ci cadre liggéey hmm. dinaa liggéey jole leen rek lay bañ hmm. dem fu am clan waaw duma dem foo xam ne daal dañu ma fay xeet wala lii wala ñu juyal ma fa yàlla dimbali na ma ba fu man a tegal dil sax dama koy xam ba duma fa dem loolu moom maa ngi kii sant sama yaay baax parce que euh, fan ngay xamee ne sa yaay liggéey la mooy nit préparé dara nga ñàkk caa dem walaay dëgg la ci ngay gërëmaat sa yaay mm. te looloo xew ci réew mi na mm-hmm. nañu yàlla musal ndax yàlla moo mën a jubal dëgg la ñun dañuy toog naan dañuy jubal waaye yàlla rek ma xam li jub ayca ba tey dañuy wëy àndandoog yéen ndaxte am na lu xew lu bees loo xam ni sénégalais yi ñëpp ngi naan lu mu doon xam nga maman ak ay inspiration maman ak fa muy génn fu nu mu nar a neexee euh, dama la gis ci benn vidéo uh-huh. ñu laaj la sa saak bi lu ci ne ñu ne léegi njole dafa am lu muy doxantoo mala kay laajaat <laughs> maman njole sa saak bi lan moo ci ne nga ni ma lan. sama sac bi xam nga lan moo ci nekk. ak ah. gan <laughs> yéen lu ngeen wax ci loolu. Ah? looleen ci laaj. Njoole lu nekk saag bi. man nga koy laaj li ci ne. Eh, yéen a mën a laaj. bi. billaay loolu jarul laaj. doole lu nga may laaj li fii da laaj li ci ne. doole lu nekk saak bi. nee leen nii. lu nekk saak bi. da laaj li ci ne. doole lu nekk saak bi. boo may tooñ seetaat ko. dama lay wax ne li ci ne. doole lu nekk saak bi. xanaa. ak gaa yéen a mën a laaj. Ndiolé lu nekk saak taal taasu ko. Ndiolé lu nekk saak bi. est-ce que taal taasu ko. Ndiolé lu ma wax la li ci ne. Ndiolé eh, lu nekk saak mën laaj. Eh, Alaaji tey ma wax la li ci ne. Eh, Buuba tey ma wax la li wonam tokni bawuɗo you know wonam zero américain ɓe aga coa américain ɓe aga coa yañimmayiɓe gal aga coa américain ɓe aga coa you know wonam tokni bawuɗo you know you know wonam tokni bawuɗo you know wonam américain ɓe aga coa bi lu ci nekk lu nekk saak bi doole tooñ de. yore lu nekk saak bi. du ma la wax li ci ne. yore lu nekk saak bi. loolu du gaaw a génn. lu fi xew man dinaa ko wax xam nga Cheikh Bongo mi ngi nii ana bool bi ana ana bool bi teteng teteng teteng teteng teteng teteng teteng du ko tëj ak ëggoon. ndaxte xale yi ci kër yi xam naa ne nii. ak gan ak gan lañ koy tëjee. ak gan jamono ñu toll. déedéet déedéet déedéet. Ah. ah nan yor ay parfum rek. Ah. xale yi yéen ñëpp seen yaay njole nee na yor leen ay parfum. xam nga parfum dafa neex. waaw waaw dafa xëy lu neex tout le temps yoro sa dolo euh, dolo ah bi. moom mooy parfum yow ci wax man ci sama bos ci sa bos gën bi ak gaan non mooy parfum gu neex dama ne woon sax mu <laughs> ma ñëwee ba fii ah. <laughs> bu na ma ak gaan ma ne noonu ak geen geen yi ngay takk oh. <laughs> wóorul mais yow sa gën mooy sa parfum waa man mooy sama parfum de classe bu may def nañ ko tëjee waaw léegi xale yi yéen ñi ci kër gi yëpp boo leen di dem yor leen seen lu neex ci seen saak boo leen ñaqee tuuti laal ko mu doon lu neex mu dugg tuddee agaan tuddee leen ko agaan mais nag bu kenn yor dara loolu rek laa wax leer na message bi jàll na ah na jàll ne leen ku ngeen wax noppil loolu waa nga wax noppil bu leen may wax ba ki seex yow di nga def ma ñëw demal fi nga jàppoon ah fi nga jàppoon man da waaru naa macha allah li ma la nawee te bëgg la kenn du mel ni yow da ngaa tolloog xale yi génération boole koog yaru koo gis ci showbiz bi noo koy woowee mama sa yara la ko may yal na la yàlla yiir ca lafal la cat dal sunu xel sa yaay ya liggéey lii affaire bi nday ci la góorgóorlul képp ku la mag jox ko loxo góorgóorlul da ngay dem kenn du la téye xoolal ki yàlla teral ku ko teddadil ci tuurux te nga jëm ki yàlla teral ñe ki yàlla teral xale yi ñi am 15 ans 13 ans bëgg génération bi la nañu nangu yàllaa ko dogal du yow du man du ñi fi nekk loolu yàlla la xoolal am lu fi xew man dinaa ko wax lu bees tàq ca tàq tàq gor su yàlla teral ku ko teddandil ci torox ca nga jëm ki yàlla teral yéen ñëpp gor si yàlla teral boo tabaxul yéen ñëpp bàyyi leen bopp boo tabaxul toj ko du yomb bopp jaami doo laaj li tax du yow du man du li fi nekk sa liggéey bu kenn mere kenn loolu yàlla la xësa ku yabu nangu de doo ma laaj li tax li ngay def bokkul ak keneen li muy def keneen li muy def bokkut ak keneen li muy def El Hadj Ndiaye bàyyi sala baayu Sala baayu Abdoul Ndiaye 2STV li muy teg ak li muy def bokkul ak keneen ku ne war naa mën a dem yoon wi yaatu na dukk dukk dang dang gëbëx lëwu dina faj ngeeñe waga jaane na faj fande wasi ne ko ndar toge ji kon man de lu mataasu bu ma xëyee ci internet bi dama koy dégg waaye nag dama ñàkk ki ñaan duuma ci kaa lu ma créé ci réew mi man de fàtte naa ko du ma ci kaa ndaxte aar bi dafa neex eh gan